ñun de kenn ci wax ci ci suñu xalaat comme ci ci suñu xalaat ñu denc suñu xalaat ko pour suñu la ñu wax wax daal mooy ñoo xaar le premier septembre ñoo ngi xaar suñuy kuréel yi nga xamee ñoom ñoo war jël décision wax ni bés bii lañu la bi di reprendre nous xaar suñu kuréel yoy nag suñu nee ñu ñëw leen ngeen jàngale premier septembre danañ leen leen leen laaj ne leen comité de santé bi nga xamé ni mom ngeen yor lan la leen wax buñ ñu waxee ni li lañ wax ñu ne suñu ñoñ dem leen ngeen jàngalé gi té ngeen tënku ci lii comité de santé bi wax loolu daal ci lañu ci lañu nekk ni euh, di ko di ko xaar bi donc mënuñu xam en tout cas jéemuñu toog di xam ndax le premier septembre ndax dana bax wala du bax comme ken woowu dañuy ñew japp suñu ñam tok di xaar ba le premier septembre bu le premier septembre joté ñu ñew comme ñëpp constaté bu fekké ni jàngale mën na am ñu jàngale bu fekké ni jàngale mënul am ñu xam ni kat jàngale mënul am té ñëpp bu boobaa Sénégal gëpp dina xam ni jàngale moo mënul am waaye ñun kenn duñu kenn duñu pousse pour wax ni ñu wax kat yi ñoom ñoo bañ jàngale bañu ñu jàngale le premier